مسكن التعلم وموضع الفكرة والتفهم ومسكن الإرشاد والتعليم ومسكن التصويب والتفهيم nga xam ne mooy alimaamul akbar nga xam ne moom la sëriñ bi teg ci sunu kanam mu dinu jiite ci jàkk ju mag yii di ak jumaay Tuubaa eh, di nga xam ne eh, tey moo dikk tey jii defal nu teraanga ju rëy rëy ubbil nu jàkka ji eh, ni ko sëñ bi waxee léegi rek am yéene ak ndigal barab bi bi nu ko sëriñ Saaliw joxe fii kero ba ma ko joxee dafa am ñaari baat ji ma wax baat bu njëkk ba mooy def na moom boo demee nanga nga fa def daara te def fa jàkk boo ko fa defee de da nga fa def lu ma neex lool te it jàpp naa ne itam doo ko rëccu ba ma ko waxee nag ñaari kàddu yooyu noppalootuma di jéema ba daara ji moom noppi woon na mi ngi nii jàkka ji it di door a noppi tey jii eh, bëggoon ko bi ma demee ci sëriñ bi sëñ Muntaxa wax ko ko mu jox ma ne ma nanga fexe ba ubbi ko ci rajab bi fexe ba ubbi ci rajab bi boo ko mënee ubbi ci fan yii nag moo gën ne boo gisee tey jii ma ubbi ko ci ñu ubbi ko ci bis bi bis bi xat na xat na lool ndax tey jii defe naa la paroxaan nit ñu bari dem nañ poroxaan waaye nag li ci am solo rek mooy def ndigal li loolu rek laa ci doon dabu moo tax ma def ko ci bis bi ne mënoon naa koo def ci beneen bis gënoon koo gën a yaatal itam ñu bare bari yëg ko waaye yëgaluma ko ñu bare ndax xam tolluwaay bi waaye di ci sant yàlla bu baax a baax nag ndax euh, loolu yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxoon ne man bana lillahi masjidan walaw ka mafxasi qataatin bana llahu lahu baytan fi janna hadis boobu rek lañ ñee lool lu toll ni piccum bi lu toll ni tàggum picc ku ma ko tabaxal man yàlla man yàlla tuddee ko jàkka danaa la tabaxal kër ci àjjana kërug yàlla ci àjjana nag bokkut ak kërug àdduna yàlla na ko yàlla defal loolee rek bokk na ci li tax nu sawar ci ñaareel ba it mu dollil ma ca ne ma foofu yi kët na nga yëg ne suuf la soo xam ne su barkeel la ndax ñaara ko séq ma Masamba ak sëñ Mor Jaara foofu yi ba ba ngay dem Misra lépp tolli sañ Mor Jaara la woon ba sëñ Mor Soxna Mbàkke moo fi mujj di fi bay muy ay toolam ba ci hôpital bi mu ne ma sëñ Mor nag fonkoon na ko lool <clears throat> moo tax ma jox la foofa ngir yéen kat mbàkke ngeen dëkk <laughs> yéen yéen mbàkke ngeen dëkk te sëñ Mor soxna moom am na lu ngeen seq ak moom lu yaatu moom sëñ bi ci boppam ne ma méngale googu kët laa ci jublu loole it gën ma caa neexati kon sant bu baax rek sant yàlla bu baax ci weer wii ñu ko def nga xam ne ni ko sëriñ bi waxee léegi julli anniversaire am mooy rajab doomu aadama june tey dañuy wax ne dañuy feetu li gone yi wax léegi sunu anniversaire maanaam bis bi ñu juddoo woon bu egsee ñu di ko feetal nga gis ñoo xam ne dañ ci àttan lu ne di ca def lu ne waaye tey weer wii nag moo doonoon anniversaire yu julli ci la julli ñëwoon ci àdduna yonent bi alayhi salaatu wasalaam jëlee ko ci asamaan nim ko waxee léegi kenn fekk si wu ko di ko jox moom moo ko jëli waj'alhu da'ban maskana wa mawdi'a al-fikrati wat wa maskana al-irshadi wat